فإنني أخدمه بما استوى من سنني خير خديم المستوى فإنني أخدمه بما استوى من ظن أنه يكون عبدا يرضي بالذي كخدمتي بدا فارو دلال والدلال يلخاد لي من الحب الخلال مرخا كفاني عدا والبلوى من إليه خلمة خلا سمات روضتها إلى الحيام عزمات ردياني سبت شيلاني عليه ردوان الذي علاني ردياني سبت أبو الحسن alayhi ridwanun yuxaalidul xasaan si ndigalu xalif général des mourides Mbaye Gueye PDG EMG groupe amaloon doxum nemeeku njak saaw dëkkub sunu maam Aziz Sy Dabakh Serigne Sidi Ahmed Sy moo ko dalal ci keppaaru waajuram ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu kan Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu jaarale ko ci kan taalubeem doomam xaritam di koo xamante ni ku mu wóolu la ku mu doy loola yónni ko nag ci kan ki nga xamante sunu waxoon ni musuñoo gis alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh di dégg jikkoom rek di dégg ak mbaaxam rek di dégg ak rafetalam rek boo gisee kii nga xamante mooy Serigne Sidi Ahmed di nga xam ni dëgg-dëgg li doon wax ci alaaji Abdou daal gaynde daal moom gaynde rek lay jur Serigne Sidi yàlla la yàlla yàggal ci sa kanam mag yëpp ci darajay Seydina Muhammad ñu ñëw nag fii ci jagsaaw buqatul mubaarak bii nga xamante ni soxla ak jàngoro ñoo yem fii ci jagsaaw ki ko jaaxal daal mooy ki fi ñëwul waaye alaaji abdul aziz si lépp loo xamante ni lu la jaaxal la ak lu mu mën a doon boo ñëwee ci jagsaaw ji naan ci ndoxum jagsaaw jooje jàngoro suñu borom dana ko saafaral biir ak biti Sidi njabootu sëñ Tuubaa gépp ngi lay nuyu ñu ngi lay jëla jëfal di la bàyyi xelit nag ci lii nga xamante ni ñoo ko bokk muy ñaar muy askanu maam maaram ak diine lislaam nga yor ki sa puso di ko ñaw di ko dox démb ak tey guddi ak bëccëg waaye nag wéttali ko ko ak kan sa seex bii ngay wax di alaaji mbay géey EMG Euh, du ma dugg Touba te àndunu mbaa bu ma fa duggee te àndunu du lu ump mbaa lépp lu may dox ci yoonu murit it euh, danaa ko waxtaan ak yow ba bis bi bi nga koy jël di ko dara jaare sëñ Muntaxa dangaa toog ak moom waxtaane ko ni ko gannaaw ba ma ci waxtaanee xalif général de Tidiane ak Serigne Maodo Abdoul Aziz Dabakh yow dama bëgg nga xam ni bis bi daal lii laa ko ndar samay bokk samay njabootu Maam laa Maalik gépp rafetlu nañ ko doole ko ci xalifa ba ci ki gën a nekk ndaw mu rafetlu ko lool ko kon tey jataay bi jataay bu am solo la waaye nag sëriñ Sidi sëriñ Muntaxa nee na mi ngi lay nuyu mi ngi lay jaajëfal mi ngi lay sant sant gu wér la mu la waxoon kera ni su ma nekkoon ci aw yoon it soo ñaat nga ma suñ muntaxaa loolu la wax su ma nekkoon ci yoon soo ñaat nga ma na nga xam ne lii nga def kat jël nañ ko bu baax a baax te fas yéene nañ ko ànd ko ak yow ànd googee mu ko bëgg a ànd ak yow nag mooy waral mu xam mbay géey mii ni ngeen mel akub xolam munu ko demal nga teewal ma fa Mbaye Guèye doon dox yónnee Serigne Mountakha Bassirou lépp nag fukki nag ay saaku ceeb naka noonu la Serigne Mountakha barkeloo si gàmmuk jagsaaw bi ñu amal nag samedi yem ak juróom-ñetti fan ci weeru février bi ñu dëgma la bis bi buñ koy jàngat nee na ñaar lañ ci gis ndamal lislaam la ak dundal ak bokk nee lislaam nag nee na ñun ñëpp ñoo ko war a jàpp te dimbali ko ba mu àgg fu ba mu àgg fu ne ndax bu ñu nuy teral ndax bu ñu nuy teral nee na lislaam rek a tax nee na bu fekkente ni ñun ñii dañ ñuy teral te ña lay teral am na ca ñoo xam ni mat nañ lay wayjur nee na loolu lislaam rek a ko waral nee na moo tax suñu borom nee na yaa ayyuha alladina amano in tansurullaha yansurkum kon daal diine mooy sunub sak ñun nee na ñun nag amuñu sañ-sañ diine nag mooy ki nga xam ni moom moo am sañ-sañ ba ca des nee na dinañ ci gis ak bokk gu dund nee na li nga def nii ren nag nee na su doon ni keneen a ko def nee na koo xam ne wóoluwuma àlluwaam nee na damay wax ni ki mu li mu def sax xamul lu mu toll. ndax ki nga ko cërale. ndax ki nga ko cërale. muy Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñi ko xam ñi ko xam. man de xam naa ci moom lu bari. nee na man xam naa ci moom lu bari. leer na ma ni leer na ma ni. bis bii bis bii. su ko mënoon su ko mënoon. jëmmam la fi indi. kenn doyu ko ci ku dul jëmmam ko ci ku dul muy doxee doxin woo xam ne. nee na muy doxee doxin woo xam ne nag. suy tànn mbir suy tànn mbir. du ca xool lu mu bokk ak yow ndax li muy def lu mën nga ko ndax li muy def lu mën nga ko mbaa tëlee nga ko nee na la cay xool nee na waaye du ca xooluk bokk mbaa ak jege ñaale bi mu xamee ni àdduna tënk na ko ba mënta teew si fii dafa seet ku ko doy ku mu wóolu jikkoom ku mu yàggal ba xam ko mu yebal ko fi nee na muy alaaji mbay géey mii xam na ko bu baax ndax yàgg nañu xam na ko bu baax ndax yàgg nañu bu ko leeroon ni bu ko leeroon ni li mu bëgg fii mënu ko li mu bëgg fii mënu ko wala bu ñëwee bu ko fi defee du mat mbaa bu ko fi defee du mat nee na kon sëriñ bi nee bu boobaa du ko fi yebal ndax bari nay ndaw ndax bari nay ndaw waaye nag da koo woolu te doyloo ko te moo ne loolu nag alaaji mbay géey mi moo ko jëf sëriñ bi waxaaleel nga ñépp nee na tàmbalee ko ci sunu kilifa di sunu soppe ñu bëgg ko lool di sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke xaadimu rasul nee na doy na cër nee maam seexul xadim meññ la nee na doy na honneur doy waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin jikko ji te it nag jikko moom mooy nit nee na jaam bu jikkoom rafet yàlla collaboré ak moom nee na ci la tagge Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi kàddu yi nga daane léegi nee na te tegu ci teguwaayam nee na te muy bu wér te leer nee na te lépp nga duppee ko ci ashariatu wa sunna ak njàngale mag ñi nee na daal sëriñ bi moom jërëjëf nee na macha allah macha allah macha allah nee na fu yàlla wootee jihaad ci alquran naax ci jullit yi nee na alal la njëkk a tudd nee na koo xam ni yàlla jox na ko teraanga nee na toujours yàllaa ngi lay woo kon ki nga xam ne xaarul ñu woo ko nee na foo ko fekk mi ngi làmbatu fu ëttu mbaax nekk nee na fu mu mën a mànge tuyaaba fu mu mën a wuutoo yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa ak kuutaayam yi nga xam ni ñoo màng biir àdduna bi nee na yàlla yónneetul yonent waaye nag garaatu yonent moom du fi jóg al ulamaau warasatul anbiyaa nee na sunu maami leer yëpp ci lañ bokk macha allah sëriñ bi daal sa waxtaan wi lamb na àdduna ak alaaxira sëriñ bi nee na bëgg nañ la sopp nañ la waaye nag gënate naa raw ñaanal leen nu yàlla ba ñu def ko fi ko war a def te mooy di terale ko jaami yàlla yi te que nag incha allahu taala waxuma sëriñ Mouhamadul Muntaqa moom itam teew na ndax sëriñ baa ngi nii teew ceer buñ ko waroon a jox buñ ko ko joxul lan ñu ni bëgg nañ ko tënk nañu sopp nañu kon lu boobaa du dëgg doon dëgg ci noonu Mbaye Guèye PDG EMG jotali nag kàddug xalif général des Mourides ci ndigalal sëriñ Muntaqa ñu dox yónneen ni sëriñ bi nee na ndawal gi ceeb bi boisson beeg ndox mi jox ko gañ ni nee na loolu dong lan ma wax loo waaye waaye nag am na ku ma tegaloon yóbbante muy Baay Faal mbaa Yaay Faal assistante Saydatu Mariam nee na Saydatu suñu xarit di xaritu Sidi Ahmed di xaritam di soxna Mariama ñu ko gën koo xam ci soxna Baali Muntaqa yóbbanteem daf ko noon boo doxee yóbbante bi ba jox liñ la yónni ba pare joxe ndawal gi ak ceeb bi ak boisson bi nang ma joxal Sidi Ahmed ñaari million nee na nit ñi nag nan ko def ci liggéey bi nee Sidi teel nee na toujours maa ngi ci yónneen de ci yónneen rek laa ne waaye nag ma sant yàlla ba ki ma yónni yónni ma ci fi ma yónni nag ci sa bopp rek ci yaakaar naa ne du ngóora du dayo waaye sens la lu wér ngoogu waaye kon ma wax ni kon kon daal mbaam muy nag liggéey wayjur yi te leelo nag la ñi ma àndal ñëpp ak ñi yónne woon a ñëw jàpp leen ni ki nu yónni ak fi mu nu yónni ak ñun ñu koy dox lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci tuyaaba xañ na ci senegal yàlla na ci yàlla doxee defar ci Sénégal ci barkeb ki ñu yónni ak kim ñu yónni sëriñ bi yónni nañ ñu ci sunu kër yónni nu nit nag ci sunu bopp moo tax wax dinu jafe ndax wax ci sa bopp kenn du ko man waane nag ki nu yónni bu nu wékkoo ci barkeem wax dana nu yomb moo tax ñu mën a wax waaye nag wax fi nag moom du suñu cër jàppoon naa ni damay ñëw ni sëñ bee ma yónni maa ngi ñibbi ñi fi ñëw ànd ak man nee na bëgguma lim ndax ku ñu yónni ndaw nga kala gunge ndaw la ndaw nag demul jarul ñuy lim na mu def ak fa mu jaar dañ ko yónni rek ndam li daal sëriñ Muntaxa ko moom ndam li fan la jëm ne ndamub sëriñ siidi Ahmed si la ndax ndax moo ko def moo defaral lislaam moo tënk seytaane wax lu rëy jak saaw ak ni mu toll jiitu suñu juddu tey jii mu jóg dem fekki sëriñ Muntaxaa média yi topp ko mu ni ko jak saaw yow lañ ko jagleel ren nee na sëriñ Sidi def nga lu rëy xam nga ni sax bu nu woon bañ mu nduru dañuy jiital lu jaaxal ñëpp am na noo xam ni bu ni melee day mel ni dañuy puukare wu te loolee sëriñ bi bëgg ko. mu doonoon ndaje buy fidali mbokkoo gi dox diggante maam Serigne Touba. ak El Hadj Malick Sy matxan wana an mislihi kullu wali madaxtu matxan la daa maa yomba maa uyubi wa kafa zanba madaxtu indaw naasil galwa